benn affaire deux ñu ñëw ci purement politique affaire bi damay associer damay différencier Pastef ex Pastef ak Sonko si samay analyse pour mu dëgër Bassirou Diomaye choisiruñu ko parce que inspecteur des du trésor non y en a beaucoup choisiruñ ko parce que lii la parce que lii la non dañ ko choisir parce que dafa am aile bu muy représenté ci Pastef. ban aile. ay rek ma ñëw. moo tax mu nekk numéro 2. ban aile. li muy li muy réclamé lan lay réclamé wu salafiste. parce que Diomaye n'est pas un salafiste. teg loolu xam nga ko défendre. non défendre ma ko. Bassirou Diomaye ne s'est jamais réclamé de l'aile salafiste il n'a rien à voir avec le salafisme mosuma ko dégg mosuma ko gis ci pratique am nee naa la boo ci amee élément factuel nga génne non li ñuy wax Pastef dafa am ay aile may mun a moom am na aile benn deux mais Cheikh ma li ngay wax ne amul élément factuel. Sonko non c'est quoi l'élément factuel qui te permet d'avancer que Bassirou Diomaye est un salafiste wanewu ko ci daraam wanewu ko ci discours am yàgg na toog fii c'est un homme moderne et ouvert d'esprit <laughs> euh, nañu dellu si ci débat bi ñu dellu si si circonstances politiques yi. non lan ban élément factuel nga am. Euh, xam nga euh, Pastef est-ce que salafis yi ñu ngi réclamé wu ci biir Pastef am na ñu fa nekkul du salafis yëpp mais est-ce que am nay salafis yu réclamé wu ci biir Pastef man xam naa ay salafis yu nga xam ne dañoo moderne. kenn ñu taxaw bëgg Sénégal di liggéeyal Sénégal ma bokk même ànd ak ñoom sax ci ay benn activité en tant que ministre jàppale leen mais fii dafa am camp yu bari est-ce que am na discours salafiste dans le Pastef. mais xanaa tey ngeen doog a. non non may mun a may mun a xamal ni ngay def c'est très compliqué dangay bàyyi ñu wax rek mu dem Pastef am na ci biir ñu def ay déclaration génn de temps en temps wax am na benn camp xam nga ne dirigeant wu Pastef yi am na ku ci nekk nu nga nu nga bindoo ñoom ñëpp bokkuñu orientation. les connotations religieuses dans le PASTEF je l'ai dit depuis longtemps boobu directeur du COUD laa woon boobu aspect ñëw ku ci nekk xam ne lu mu ciy wax ñu dem parce que boo waxee falafis rek da ngay dajale ñu bëri te ñëpp mbé bokkuñu foofu ñu dellu si ci